adama ak awa amoon nañu ñaari doom kenn ki mu ngi tudd kayin kenn ki mu ngi tudd abel kayin nag daldi fiir lool rakkam abel berey ko yàlla daldi mere kayin ndax lu mu rey rakkam mu daldi sori yàlla ndax bakkaaram te ci bakkaar boobu lañu la séparoo ak yàlla maanaam xaajaloo ak yàlla ndax yàlla bëggul bàkkaar te noonu faw nit dee ndax déggadil yàlla noonu yàlla dal di sàkk nit le te sépa nit ki séparé ak yàlla ndax déggul kàddu yàlla bi